li may wax rek ci dëkk bi fi laa dëkk euh, sama wareef la tamit ma accompagner gouvernement bi ginnaaw bi ma gërëmee le président la république ak le premier ministre ak le gouverneur le préfet la commune de Kaolack ci initiative bi nga xam ne président def na ko ginnaaw loolu nag dama nekk doomu dëkk bi te war naa mën a participer ci sama mën-mën ci xeexu mbalitu dëkk bi ak taxawaayu dëkk bi ni mu waree te xam ne tamit jot na pour dëkk bi am changement ci côté bi ñu nekk ni tey ci ci ci ci mbale bi. waaw xam nga Kaolack euh, damay wax faral di wax ne chaque citoyen bu nekk rek am na wàll ci dëkk bi moo xam nag nan la koy mën a taxawee ba mu ba ba ki mu dendal yëg ko parce que je crois que loolu moo am importance euh, gestion politique parce que ku dëkk quartier Saara Bétoir bu defaree même bu tàgguwul ni sax l'essentiel que ñom ñep bu nekké même objectif lañu am bu ñu réunir dinañ am résultat donc l'essentiel que moy de participer nga def li nga wara def rek comme citoyen sa morom def sa benen morom def je crois que ku nekk rek dana gis njëriñ ci ci affaire bi parce que aduna dafa dafa ki jot amut ku nekk fi nga nekk rek nga mën def parce que dem nañ ba dëkk aduna bi légui sax ñëpp ci dañuy en matière de vidéoconférence yi liggéey ay contacts yi yëpp dañ koy def à téléphone pour affaire yi développer parce que foofu lañ toll tollatul di regrouper dans une salle fait beaucoup de théories parce que tubaab yi génne nañu ci bu yàgg donc man sama objectif style américain laay doxee parce que damay agir parce que jot amul te mën nañu liggéey lépp ci àdduna donc loolu moom ma gën a bëgg fii ci dëkk bi donc loolu sama wareef la comme li ma wax rek si dëkk bi rek geste bu ndaw la bu ma def muy fanweeri baga ordre bi 360 litres ak 20 brouettes ak 20 pelles 20 balais nylon ma jébbal ko pour que ñu mën a jàppandiku ci loolu boole ci doom lu ñu am pour taxawul dëkk bi ci mbiru defar ak ci ci ci ci bi moom tax ma jébal ko le président Dame Lo incha allah tamit di ko fas yéene def ci yeneen yeneen barab yi nga xam ne ci la nekk ci ci dëkk bi daal. di gërëm ñi fi ñëw ñëpp di gërëm Fallou Kébé bi nga xam presque li fi nekk yëpp moo ñu ko jox ah di gërëm journaliste yéen di ñaan yàlla lii président initié yàlla dimbali ñu ñëpp ñu topp ci fexe ba nga xam fu mbalit nekkee ci gaaras bi ñu jéem koo jinni à partenariat avec SCG dafa naa changé dañ tur sax xaw ma ban tur la dégg nga kon ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant ah di ñaan yàlla rek sëboor yi gis lii état bi def ak ak mairie ak Kaolack Fallou Kébé bi nga xam ne bonne volonté la ñoom tamit ñu jàpp ci ba nga xam ne euh, gaaru ceer bi dina gën a set bu baax ñun nag gaaru ceer bi rek lañ am ku ñu jàppale bu set rek defe naa ne kontaan nañ ci bëgg nañ ci parce que nit ki fi ngay fi lekkee di fi naanee di fi fanaan set rek moo fa war kon vraiment ñi ngi gërëm gouverneur bu baax a baax di gërëm kilifa am gu mag muy président de la République di gërëm Fallou Kébé mii nga xam ne nag indil nañu ay bagage may ñu ko ñu ngi koy gërëm di ko sant am nañ ci yaakaar bu baax parce que ñun daan nañ jënd bërigo lañ daan jënd dagg ko di ko teg ci kii bi chef de piste bu ne ñu jox la benn bërigo ne la yow yaa koy gérer chef de piste bu ne jox la benn bërigo ne yow yaa koy gérer kon bu ñu indilee ab bag yu mel nii vraiment dañ koy rafetlu di rafetlu ko fi ni muy Fallou Kébé di ñaan yàlla xam ne mbali doot fi am ci karas dañ ko wax dafa wax ne te daan koy xeeb ku ne doo nee na ku defal teraanga di ko xeeb rek doo ko fay lii nag day geste bu rafet wax dëgg yàlla sunu xol sedd na ba daanaka mënuñoo wax daal ndax lii c'est la première fois am ci marché bi. mi ngi fi doog am ngi fi doog am loolu nag dama ci insisté moom parce que man yàlla rek laa gëm. sans bambale du ma ko bokk kenn ku yàlla bind. su kon nag lii na la wir na yëg nit egg na suñu xol yi. olof nag daf ne lu feeñ ci lu fees ci xol génn ci cër moo tax mu génn cër bu ndax am naqar sax bu génnee feesee ci xol génn ci cër nañ ne jooy naqar day tàng waaye jooy banneex day day buy génn day bànneex buy génn day sedd kon li rongo ñu sedd guy lañ ko recevoir di ñaan tam liñ ci bëgg yaa ko xam yàlla na ci yàlla defal kaw yi suñ sa njort sant nañ le bu baax tamit da xam ne lii nii mm-hmm. marché bi li fi nekk marché bi li fi nek mom mooy lii ñii ñooy mag yi marché na lolu parce que bi ñu bi daan dañ daan toog ba dañ tok c'est un certain moment bu ñu seet seetal Caritas ñi dem avant matériel Caritas leer ñi ñep ñëpp dañ daan Caritas ñabal ñu bren abal ñu pel ñu def seet seetal am na jur boo xam ne xëkkal naa sax ak ak euh, secrétaire général maire dañ dañu ko bal sen ba paré xalé yi di sante Caritas mu ko convoqué na lan mo tax ñu di sant Caritas te maire bi matériel man suñ xamul duñu dem Caritas na matériel maire ñu ñoko mom mhm. parce que maire bi la fay suñu droit kon su matériel maire amé matériel amu droit jëli ko feneen mhm. lii nag mi fi njëkk am saa bu naan ba daal bi def seetal dañu naan matériel di ko dem si kàttan ñu awul matériel lii nag lii nag geste bu rafet la sant nañ la bu baax a baax te tey li ma la waxoon léegi laa lay wax rek. góor gi Modou Kébé ko xam ku la xam ku ne xam ne góor gi Modou Kébé buy sa waajur ñam mënoo ñàkk a mel nii lépp loo xam ne war na ci mhm. loo xam loo xam loo xam da ko doon jéggaani mhm. ñu la koy abal mhm. soo moomee sax war ko mën a fonk incha allah lii bu soobee yàlla li ñu war nañ ko ba bu ngeen seen xam ne matériel nag parce que lii bi ñu ko mayee xaaj bi ñu ko mayee moon yaa daf la daf la sëñ ba duñ ko séddoo sëñ bi la ko loxo yim tegi xam naa ci moom wóor goo xam ne boo ko tegee nag gis ñu ko def boo duggee ci ma danga gis projet tamit yi mooy yi koy gis yëpp ñoo ko fi installé ci xaaj boobu kon lii nii tey li ma la xamoo ci nekk rek wax dëgg yàlla munuñ munuñ wax daal fi mu toll fi mu toll ci ñun wax dëgg yàlla xamuñ fi mu toll yi parce que nit ki ci boppam lépp lépp lu lépp lu may ci dara jàmm rek waroo koo xeeb te lii mën ko bañ fendi bu la neexoon bañ ko fendi ñaanuñu la ko yaa toog ba yàgg nga indi fi lettre ne nañ ma ko jox mm-hmm. biig bi ma loolu da nga ma rëdd safar ma dinañ fi ñëw temps ay nangam nangam dañu kondil mm-hmm. kon sant yàlla la nañu lay sant di la gërëm di ñaan suñu borom guddal saw fan wéeru sa ba lépp li nga bëgg lu ne mm-hmm. li sëñ Bassirou Mbacké daa daan xalaat yàlla buñ ñaan yàlla yàlla yàlla na yàlla def li gën